ku ne waar wi xel dem ci Modou Diagne Fada yëfi suuf nag la bëgg moo tax euh, ca ba coalition bi judd fàttaliku leen euh, waar la ko tuddee tubaab ni lopin de terre euh, yëfi suuf bu ko mos a waaye suuf si yëpp dugg na kaso ba tàyyi loolu ci yéen laa ko déggee ngir xeex ak ngir xeexal maître Abdoulaye Wade Daaru Musti ba université mu yàgg a nekk mooy comme xale yi ñu tuddee actuellement activiste teel a dégg nag honorable député bi muy am vingt-sept ans ñu teg tax euh, ay ndomb tànk yoo xamee ni am ko ci réew yombut rawatina nga nekk xale euh, loolu defe naa bokk na euh, ci particularité am en tant qu'homme politique Adja Binta waaw dëgg la def nga le portrait politique de <laughs> de Fada xanaa rek ñu dugg ci yàgg na yàgg na gàddu ileer fu mu jaar trajectoire am ñëpp gis nañ ko mm. waar wi gis nga bu mu amee problème ak maître Abdoulaye Wade mm. dafa génn créer waar wi dem élection am ñetti député def exploit defe naa ne ci saasa <laughs> ñetti député la indi defe naa ci saasa le président ne kii kat kii boo waat mu dellu siwaat mu dellu siwaat euh, PDS di cheminer ak euh, le parti démocratique euh, sénégalais mm. ba fu ñu mujj mooy dañ ko génnee ci parti bi parce que il était contre la candidature de Karim Wade wala boog dafa doon laaj ñu yeesalaat les instances du parti mm-hmm. ànduñu ci woon ñu ñu dàq ko mu créer LDR Yessal mhm. mu ko créer il est parti encore aux législatives mhm. mais malheureusement plus fort reste un député la jàlle mhm. la jàlle ñu doon xaar au vu de sa trajectoire politique mu dem aux élections euh, à la présidentielle de 2019 euh, à la surprise générale mu dem ànd ak Macky Sall tout le monde s'est dit mais pourquoi alors pourquoi. te ñoom dañ ko organiser. waaw salle des banques lañ ko accueillir. waaw <laughs> ñu defalul keneen. jox ko directeur général. ah baax na. waaw xam nga xam nga li nga wax li nga wax euh, bon euh, yow spécialist su politique euh, bu réew mi nga. Mm-hmm. noonu la léegi moom bind la. Mm-hmm. Ah, ba ñu nekkee université li ñu gëmoon mooy xeexal suñu moroomu étudiants yi. Mm-hmm. ba xeex yooyu yóbbu nañu kaso ay yoon yoon mhm. su nekk ma wax ko mhm. man amul benn cachot mhm. benn violon bu nekk ci tunu ndakaar yi bu nga xam ne fanaan ma fa benn guddi wala ñaar amul la ko tàmbalee Bel-Air ba conk ba te Guy Marius Sagna <laughs> euh, waaw ba ma cay toll alors mais loolu yëpp dañu teel a namputal ci xeex pour démocratie xeex pour askan wi et cetera ñu nangu aussi sacerdoce boobu léeg nit ne waaw moom day dëgg-dëgg Euh, président Ablaye Wade jàppale na ko ba tey. Mhm. ah mais léegi nag gis nga mu ngi bàyyi nii président Abdoulaye Wade nekk ci leneen. Mhm. bon <clears throat> am na ñuy wax loolu. mais li may fàttali toujours mooy man maa njëkk a jàppale président Abdoulaye Wade ndax man maa nekk ndaw am 18 ans 19 ans jaay sama ndaw. Mhm. tey ji mënoon naa mënoon naa nekk professeur d'université mais euh, nekk ma ko. Euh, xañ na tëdd naa kasu ay yooni yoon. Euh, jël naa grenade lacrymogène ay yoon yoon mm-hmm. mais loolu yëpp ngir benn jour parti socialiste dem PDS ñëw mm-hmm. Abdou Diouf wàcc Wade yéeg mm-hmm. c'était le l'objectif donc c'est normal que bu Wade yéegee mu xool ñu mu doon àndal mu am ñu mu ci fal donc man ba mooy fal ministre de la jeunesse dama doon symboliser la jeunesse sénégalaise la jeunesse du parti qui s'est battue pour libérer ko prison ay yoon yoon mais qui s'est battu aussi pour mu toll fi mu fi mu toll. Mhm. ñu ànd ànd gor ba 2005. 2005 bi mu jotee mu commencé am problème ak euh, président sa Seck ma nekk xaritu Idrissa Seck bon xam nga rek mais xarit la ñu dëgg la sama mag la mais man Idrissa Seck andiwuma ci PDS dañ faa tasante man benn jour ma ne <clears throat> man daal je suis fidèle au PDS mais loyal à Wade euh, ah, non je suis en amitié je suis fidèle au PDS mais loyal en amitié ñu ne ma lu tax nga wax loolu parce que boobu ci digg combat hmm. la ñu nekk amul pas évident période c'était pas man mais man loolu laa gëm c'est-à-dire parce que nit ki du ngeen nekk ay xarit hmm. tey mu nekk ci jafe-jafe ñu tëj ko kaso ñu laaj la nga ne ah non man vraiment déedéet damay assumer sama amitié ak moom mais nag assumer aussi bokk gi nga xam ne bokk naa ko ci biir PDS ñu ne wax boobu leerul fa lañ dëgg dëgg dëgg ba génne ma si gouvernement bi génne gouvernement am keneen ku ñu jël teg ko sunu sunu sunu sunu place. Mhm. génne nit teg kenn amul problème parce que loolu bis bu nekk mu am. Mhm. mais nag tey bu fekkente ne yow ak Pape Cheikh Diallo bokkuma da ngeen a bokk as ab dëkk. Mhm. bokki mbokk bokki am di jàmm bu ñu jëlee lii kii yor jox kee la hmm. muy nuru mooy fenqale. muy loo booba jamono. waaw la muy nuru yi tamit mooy. humiliation waaw léegi nag xam nga ni dëgg bu fekkee dafa sentir dañ ko humilier hmm. euh, dama la xam nga jamono lu ma ba soon wax président Wade ñu toog ma ko gis nga muus boo ko tëjee cim cim néeg yor wet bu dawee jëfee nga dóor bu jaaree fële nga dóor bu yàggee muus bi song la hmm. même lu ko jëy fekk rek mu xam ne loolu di loolu moo yor waar wi waaw loolu donc ñu bañ ñu taxawal waar wi waar wi nag c'était un contexte avec le boycott de cette de l'opposition d'alors parce que 2007 parti socialiste bokkul keneen bokkul yàlla jox ñu ci ñetti député ñu amoon près de quatre-vingt mille voix mu nekkoon prouesse politique comme ni nga ko waxee ñu toog président Wade woowaat ñu parce que man ba ma def waar wi aussi du parti coalition électorale la woon te waar comme ni nga ko xamee ci biir tool lay nekk. Mm-hmm. fi suuf la waaw ci biir tool lay nekk. tool bi nag mooy moo doon PDS pour man. mais nag comme léegi man euh, xat naa ci biir tool bi ma ne naa ber sama waar bay ko mais ba mu beree waar bay ko ba mu set bon dañu dindi ñag bi rek boolewaat lépp ci tool bi muy retrouvaille <laughs> donc loolu moo indi boole waat bi alors bi ñu boolewaatee mu woo ma dénk ma ministère de la santé ma góorgóorlu ca bañ fa jógee ñu wàcc bi ñu wàccee ñu dem élection législative bañ dem élection ci ñoo doon defar liste bi laa bokk waaye ay galgal yu sew yu nekk ci biir tax ba neuvième position laa nekkoon ci list boobu j'étais le dernier à passer ci liste nationale bi ñu booleeg li ñu am ci liste départementale yi ñu dem ñu def groupe parlementaire président Wade denk ma ko noonu la ñu àndee àndee àndee àndee ba coowal groupe parlementaire bi juddu ñu ne ma da koy jox diw ma ne lu tax ma ko jox diw. waaw ma ne du ko jox diw. Mhm. président Wade woo ma demee danga ko war a jox diw parce que naa ma ko déet mais lu tax ma koy jox diw. parce que lan la la waxoon. bon jarul euh, <laughs> lu paase la loolu lu paase la mais am solo rek mooy daal nanguwuma woon. ñu dem ñu bëree assemblée ma jël group bi téye téye ko waat pendant un an diggante ba ma ko téye ci diggante bi nag ci lañ ba ma ko téyee groupe bi ñaari fan lañ ca teg ñu dàq ma ci parti bi. Mm-hmm. bañ ma dàqee ci parti bi ma ne demuma jël huissier. yónnee ko Omar Sarr mi tey mi nga xam ne moo jiite woon booba parti bi jëlaat huissier jaarle ko ci mairie bi lépp rek bëggoon am këyit buy firndeel ne dàq nañ ma pour man ma sukkandi ci ba bañ mhm. kenn joxum benn këyit ma xam ne lii boo fi nekk naa dàq nañ ma dàqu ma élection législative yaa ngi jub si mhm. soo moytuwul soo moytuwul daañ def liste doo ci bokk yow ak sa ñooñ ma ne kon nangu naa dem naa nangu naa dàq gi créé yeesal élection législative jëw bu ngeen ki fàttaliku opposition bi à l'époque taxawaloon Manko euh, Manko taxawu Sénégal yaakaar. taxawu Dakar non non Manko taxawu Sénégal d'abord. Mm. bañ ca nekkee ñu xaw a am problème kan mooy jiite liste bi ñii ne président Wade ñii ne Khalifa Sall coow la takkarnaase ba mu des ñetti ñeenti fan ma ne lii tamit boo moytuwul buñ fi nekkee daañu forkuloo ma dem taxaw Manko balaa jël de ma dem taxawal Manko yeesal Sénégal. dem ci élection législative yi comme ni nga ko waxee plus fort reste la am. mais li am solo mooy élection législative yooyu 47 listes ñoo demoon xam ngeen ne élection yu rëboon la. Mm-hmm. parce que 47 listes euh, parti buy soog a juddu euh, xamaguñ sa bulletin jafe woon na. Mm-hmm. mais man fa ma xool rek mooy performance ba parce que ci 47 listes yi liste Yeesal moo doon septième juróom-ñaareel bi te ñama moo xam. benn bokk yaakaar la téeméeri liste téeméeri parti la woon euh, coalition bi nekkoon ci trou ci wetu président lay Wade matoon nañ ñeent fukki parti coalition Khalifa Sall bi matoon nañ fukki parti ak juróom euh, coalition euh, Abdoulaye Balde bari woon nañ ay parti fa nekk ak Balde ak Girassi coalition Sonko moo ñëwoon en sixième position bari woon na ay parti fa nekk man nag man dong ma àndoon jël jël septième donc pour man c'est une performance électorale importante mais pour man insuffisante moo tax suñu waa parti bon jàmbaar la ñu ngi soo créé suñu parti mais élection présidentielle yi teel na parti dañ koy suuxat dañ koy jëmbat dañ koy dañ koy dañ koy dañ koy màggal waxtaanal ak libéro yi koo ci mën a jubóol nga allié ak moom moo tax toujours gars bu ñu nee transhumant man ma ne déet man du ma transhumant de parce que man alliance électorale laa def candidat dafa taxaw di wuti ma ne naa ànd ak moom mënoon nañoo am mënoon nañoo ñàkk mais nangoon naa jël risque bi bu ñu àndee bokk. bu ñu ñàkkee tamit ñu xam ne ñàkk nañu. ma dem ànd ak président Macky Sall yàlla may ñu mu jël ma dénk ma Sonacos ma cay liggéeyal réew mi di ci liggéeyal yi tamit. Euh, ànd bi kañ ànd bi moom lu mu gën a sori rek. te mu nekk ñoo déglu rek de dama la ànd bi lu mu gën sori rek. Hmm. te mu nekk njëriñu Sénégal ànd boobu daa war a sax. Hmm. ànd bi 2024 la yem wala déet. ànd bi lu mu gën a sori rek. te mu nekk njariñu Sénégal ànd boobu daa war a sax. doo ko euh, nekk nga ci biir lu yàgg. ñu ni yaa ngi wax ak Macky Sall te booba yaa ngi sol mbubbum parti démocratique sénégalais jiite leen. Mhm. sa contact ak Macky Sall kañ la commencé. xam nga loolu yi tamit maanaam euh, <clears throat> man sama contact ak président Macky mu ngi commencé ci élection locale 2014. bi mu doon woo di woo ñi nga xam ne yàlla da leen a dimbale ñu gagné seen dëkk te yàlla dimbale ba nekk tête de liste département Kébémer gagné nekkoon tête de liste Darou Moussi gagné bi mu doon woo ñooñu di woo sa Aïssata Tall Sall ak ñeneen ci la ba woo pour félicitation benn ci lañ gëj a déggante ba procès Karim Wade takkarnaase gisee bi ba njëkk a gisante ak Ablaye Wade euh, Macky Sall président Ablaye Wade moo ma yónni nga dem wax say soxla. en tant que non di tout <laughs> aw ma soxla man booba man soxla ba ma amoon mooy booba lañ ma yónni woon ma am ca dab ma dem lañ ma yónni woon ma dox ko ñëw rendre ko rendre ko compte <laughs> booba la jeex ba ñu gisante waatee yàlla dafa dogal sama waajur wàññeeku mu ñëw jaale. Hmm. ba mu jaalee bu def appel ne bëgg nañu ànd ma ne ko ànd bi nag tey dëj la. na ci sama waa parti waxtaan ba pare ñu toog ñetti weer ñeenti weer ndaw ñi waxtaan jigéen ñi waxtaan. yooyu moom ay formalité rek mais même bu nekkee formalité mais formalité dafa baax ci mbir. Mhm. loo gis lu nekk formalité daf caa baax. parce que li nga man wax sax ne yoonal. avant ça loo gis yoon formalité daf caa baax parce que ay nit boo àndee ñoom. war nga leen a nawloo nawloo gi mooy yaa ngi def war nga am transparence wax nga leen li nga bëgg ñoo ñi ci ànd wax ñi ci ànd lu wax ñu woote suñu bureau politique ñi ci bëgg a wax. ñi ci bëggul wax. ba ñi ci ëpp ne nañu dem. ànd jeeg président mais est-ce que seen jege yow commencé wul ci bi ngay xëccoo le groupe parlementaire. Euh, mhm. des libéraux et des. <coughs> xam nga loolu libéraux et démocrates parce que euh, dañu wax ne que la majorité euh, parlementaire. yow la jàppale ba nga mën a mooy ci xam nga loolu xam nga loolu deux mille loolu nga wax ni yaakaar naa la xam fa fa la tàmbalee. 2015 jege yow hmm. yaakaar naa 2015 non. Hmm. booba noonu gisantewu ma ak Macky Sall. mais majorité bi jàppale woon na. mais mais c'est normal xam nga. dégg nga wax la c'est normal ngeen nekk si la. Hmm. man ñëw naa sampul sama ndënd. président Wade moo nekkoon adversaire u en ce moment la président Macky Sall donc majorité ba nekk assemblée nationale luy affaiblir kële mais moo koy gënal c'est-à-dire nekkul lu nga xam dañ ko négocier wala dañ ko waxtaane wala dañ ko deal dafa nekk rapport politique normal. mais pour attends gis nga tey jii tey problème qui concerne un parti politique. mais attends tey jii wax la leen attends wax la leen tey jii tey jii euh, Ousmane Sonko. su amoon ñu fàq ci moom. wala ñu koy combattre ci biir parti mhm. kan la régime bi di faral sans pour autant que ñooñu sax dem waxtaan ak régime bi loolu yoonu politique la mais du caaginu lu ñu waxtaanee wala dama dem ci Macky Sall wala dafa mhm. ma woo. gisante wu ak Macky Sall jamono booba. Mhm. gisante wu ma kenn ku nga xam ne da nga far ci moom. mais majorité bu moom lañ bëggoon mooy sunu groupe tas lañ bëggoon mooy en tout cas na am ñu jiféete fii ñu am ñu féete fii mm. maintenant nag ñoom comme xaj na wàdd moom moo leen gën a truc ñu ne ñun daal bu ñuy nooyal mais loolu c'est de la politique sa diggante ak waa PDS rawatina président Wade ak euh, euh,